daara ji day histoire am gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu mag téeméeri junni yoon parce que ñun dañuy ñëw rek ñu ñu expliquer jël ay documents jox ñu wax ñu ne jumaa ji ñu ngi ko fonde en 1844 1844 ak léegi nag moom ay at yu sore sore sori la boo koy xool ëpp na sax téeméeri at su ko defee muy jumaa bi nga xamante ne moo jëkk Euh, installé wu fii ci Rufisque bu ñu waxee sax mën nañoo wax fii ci euh, Sénégal gannaaw juma Pire euh, dañu wax nag ne ku ñuy wax maam Ndiaye Ngone moom moo jóge woon Jolof moom mooy suñu maam alors moo ñëwoon foofu ci place boobu ba mu fa ñëwee place la woon boo xamante ne dafa raglu woon nit ñi bëgguñu ko woon di ko fréquenter moom mu fréquenter fa parce que demoon nañ sax ba menacer que ni que. Sauf que nous avons fait fi fekk donc euh, mu alors dara peut-être nitu la place bobu nga xamante nak fofu la fanaanoon ñu wa ñu ku wax Nous Diagne représenter famille Njaañeen Nous, jël place Bobu, jox leen jox alors nous ñu def juma ñu fondé donc en 1844 famille njaayeen lañ ko dénkoon ci wàllu imaama gi boobu léegi itam yàlla di leen suturaal ñoom ñu di ko yore ba léegi boo xoolee sax jumaa ji ñi nga xamante ne ñoo yore clé bi ba léegi ba ñu ko sosee ba léegi famille njaañ jaañ lay doon soo demee nii ma lay wax ak yow Moustapha ku ñuy wax El Hadj Moustapha moo fa nekk moom mooy yore woon nu mu tuddati mooy yore jumaa ji actuellement avant lui nu mu tuddati Pape Sangoone Diagne bu dëkkoon dàngu ak euh, nu mu tuddati ci famille njaayeen bi dëkkoon dàngu yoroon nañ ko mu jóge ci seen loxo dem léegi ci Moustapha Diagne donc pour dire que ni nga xamante ne noonu la ñu dénkee woon euh, jumaa ji ci wàllu imaama gi njaayeen noonu lañ ko dénkee woon ci wàllu administration ak gestion aussi famille Diagneen te loolu moom mooy continuer ba léegi donc jumaa ji nekk jumaa joo xamante ni ji euh, événement yu bëri xew na fa parce que li tax euh, loolu ñu mën ko dëggal moo di bu jëkkoon amul benn juma boo xamante ne moo fi nekkoon bu dul moom moom rek moo fi nekkoon comme juma donc ñi ñëpp fa lañ doon jullee même maa ngi xool banlieue Rufisque sax ay kunuun dafa am ñu daan jóge kunuun di ñëw di jullise si juma jooju mbaaw gii gis ni am na ñoo xamante ne fa lañ daan jóge di ñëw julli alors bi nga xamante ne dem nañu ba euh, si kanam si la ñu sentir nécessité créer ay juma un peu partout nit ñi di fa dem di julli ji loolu tam nit mën na ko nangu parce que distance yi nga xamante ne moom la nit ñi di def ak coono yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel te yàlla wax ci alquran ne laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha doomu aadama yàlla du ko teg loo xamante ne lii mënu ko te innama al usri yusran te yàlla dafa bëgg doomu aadama toujours mu koy utal ay solution looloo tax ñu créer ay juma feneen nit ñi di fa julli léegi mais terewul jumaa jooju muy jumaa cosaan loolu itam lu am importance la donc ñu koy euh, toppatoo nag ba euh, tey jii ma wax ne euh, ñi nga xamante ne ñoom lañ ko dénkoon ñaari parti lañ benn parti bi mu ngi jokkul benn parti bi mu ngi dàngu ñoom ñoo nekkoon di ko awante ki nga xamante ni moo fi mujjoon nekk moom la ñuy wax Pape Ahmed Ndiaye moom jokkul la dëkkoon moom avant lui ñeneen ñoo fa nekkoon mais Euh, bi mu génnee àdduna ñun suñu jëmm ju oyof ji la yàlla nattu ñu nekkandi fa remplacer fa mag ñi di jéem loo xamante ne lii mag ñi ñu ngi ko doon def ñu di ko perpétuer di ko continuer li ma bëgg a yokk rek mooy bi nga xamante ne julli nañu iidu iidul fitre bi passé maanaam korité bi passé bi ma déggee ne juma yi réflexionné nañ ko ba ma xutbaa bay bëgg a jeexal si la biñ ma biñ ma biñ ma interviewé

Euh, rencontre ak président de la république ñun yàgg nañ ci jumaa ji di yelwaan pour defar jumaa ji mais finalement xamoon nañu ne yelwaan mënul defar jumaa ji alors euh, Pala Mbeng ndey ji réew ñëwoon na julli sa fa Eidul Fitr bi passé maanaam ci Korité bi passé alors dégg na bi may wax nu mu tuddati affaire jumaa ji mu ne il allait en faire son propre problème léegi euh, yëg ngeen ne am na ñetti semaine yi passé ci terrain HLM introniser introniser nañ fa maanaa samp nañu ki nga xamante ne mooy El Hadj nga def ko muy ndey ji réew grand ndey ji réew euh, lébu yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Tëngéej ak banlieue ñoom ñoo dajale waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo yor ndomba tànk ñoo donc waxtaan def ko loolu alors bi mu amee aussi muy manifestation boo xamante ne bu réussir la mom mu nek nit ku ambitieux nit ku bax ba paré jël engagement né dina porter problème mu jumaa ji am ñeneen ñu ci waxoon nak ku melni mu ndjay Cissé waxna ci ku melni euh El Hadj Omar Faye Ridial waxna ci ci télévision ñeneen wax nañ mais mom le, yalla gëna a def barké peut-être ci ay ay ay kàddoom ndax biñu ñu ci événement bobu ci la waxanté ak président de la république

wax li ñu xam ci li nga xamante ne moo doon mouvement bi nga xamante ne moom lañ yëkkati ak li nga xamante ne moom lañ bëgg mais moom si boppam El Hadj Pala grande ji réew moom moo wax ak président de la république affaire jumaa ji nekk ñun suñu premier projet Tëngéej ci li ñu bëgg a def ci cadre lébu gi ak pencum lébu gi mooy nga defar d'abord jumaa nu tudd ci Tëngéej labbe yi sax si lañ bokkoon keroog waroon nañoo dem si de de audience bi mais bokkuñu pour dire que ñun ñëpp ñoo ko bokk. alors bi mu ko waxee loolu ba jeexal président de la république jël kàddu daal di ne moom génnoon na sax ci affaire jumaa yi mais mu ngi wax ne yëgul woon affaire jumaa ji nga xamante ne mooy jumaa këri suuf doon laaj sax fan la nekk mais biñ ko expliqué mu ne comme noonu la demee mu ne paa la nangul naa la ko incha allahu taala dinaa defaraat jumaa ji lii may wax nii nag du kenn ku ma ko nettali président de la république moo wax ma dégg président de la république bi mu waxee def ne dinaa leen yebal ay équipe yoo xam ne te niñ xool sa jumaa ji su fekkente ne structure jumaa ji dëgër na nañ ko bàyyi noonu réhabilité ko bu baax bu fekkente ne dëgërul ma raser ko defaraatale leen benn jumaa bu gën bi fi nekkoon loolu nag euh, defe naa ne euh, mu ngi war a intervenir ci fan yi nga xamante ne mooy ñëw parce que problème mu dix quinze jours la woon El Hadj Pala dafa tukki su ñëwee yaakaar naa ne loolu dana mën a nekk donc muy événement boo xamante ne ñun. dañu si kontaan gis nga vendredi bi passé bi ñu jullee ba pare nit ñi nga xamante ne ñoo doon julli si jumaa ji bi ñu génnee kenn nanguwul a dem ndax euh, bànneexu bekken parce que dañu daj lu nekk ci jumaa ji pour ñu defar ko li ci am ci historique ci wàll googu man mënumaa toog fii ñi ma ñu ma toog fii di ko wax ay affaire yu bare bare bare bari jaar na fi yoo xamante ne mënuñu toog fii di ko wax ñu muñ di di góorgóorlu di ut ay pexe ba yàlla dogal loolu am ba lii ñu am tey ñun sax dañ koy ragal a wax parce que dañuy ragal des fois cat dugg si <laughs> moo tax ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu may ñu ba loolu nga xamante ne mooy mébitu président de la république yàlla dimbali ñu ba mu yegg ak jàmm te ba paala waxee ba pare dama si teg ne ko président ñun de bëgguñu ku ñu jox xaalis maa ngi koy répété waat fii bëgguñu ku ñu jox xaalis ñun lan lañ bëgg yow yaay njiitu réew mi yow yaay yore say technicien ak say architecte ni ñu ñëw ñu wax leen li ñu bëgg ñoom ñu xool faisabilité bi ñu defal ñu ko liggéeyal ñu ko suñu paree na ñu seeni caabee ngi nii ñu loolu ñu bëgg parce que li ñu seetlu mooy généralement si jàkk yi bu fa xaalis duggee rek day indi ay problème du jàkk rek sax même nu mu tuddati euh, mouvement yeeg association yeeg lu mu mën a doon su xaalis duggee rek day yàq nu mu tuddati esprit ba fa nekk loolu tax ñun ñaanaka ko noonu te incha allahu taala yaakaar na ne noonu la ñu koy defalee ñu am contentement bu baax nag ci loolu di gërëm président de la république parce que itam nit suy def lu baax nekk njiitu réew je pense que dañ ko war a wax dañ ko war a fësal dañ ko war a feeñal waxtaan wii ñuy waxtaan dara taxukaa kaa lu dul remercier président de la république d'avance ci lii nga xamante ne jël na ko comme engagement pour war kaa def ñun bu fekkante ne dañuy wax wax joo xamante ne dafa nar yàq li nga xamante ne mooy suñu problème xam nga nu mu tudd ci duñ ko wax abadan kon nag fu ñuy wax rek dañ koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla nu mu tudd ci tawfiq di ko ñaanal yàlla lu mu bëgg réaliser ci réew mi mu réaliser ñun nag diine ñor nañu ñor goo xamante ne du ñun rek ñu bari ñu nekk ci réew mi euh, loolu tax mu tuddati ñu farlu taxaw takku pour que l'île nga ne moy ji parce que Juma aussi bu ko ay nit je pense que war conditions yu baax yu set yo permettre en communion ak seen borom subhanahu wa taala